wa ma tawfiqiya illa billah xesde gi mi ngi tàmbalee wajjahtu wajhi musalliman lillahi musliman lillahi wa saanani an qata in wallahi wallaay ndeysaan waaye xasida gi sëñ Ablaay dafa am ay bayit yoo xam ne nii kéemaan la yoo xam ne mi ngi ci biir yaquudi lii busaaratan qadaruhum qadaru man hmm. lahul baraaya wal fi'lu wa zaman hmm. nga xam ne mbindum sëriñ bi hmm. dafay feeñ xasida gaa ngi nii euh, dafay feeñ ci biir ni muy ñaane sun borom nga ko bàyyi noonu nag en taytuhoo kulli yëti bila nitaa waaw waaw da nii la koy bàyyi tey insha allah euh, dama bëgg nga ñëwal ma ci jëmmi baat bi mu ko tënkee nga xam ne benn bu ci nekk daf koo jël tëgg ci aw bayit muy wama tawfiqiya illa billah sëñ Ablaay waaw xam nga yàlla rek a yor jàmm mhm. yàlla rek a yor tawféex mhm. tawféex sëñ Tuubaa da koo firi woon tawféex tawféex waaw mhm. nee na li tawféex dëgg mooy nga soxla jëmm jëmm ji nga soxla yàlla dogal muy ab tëx muy ku tëx koo xam nopp yi du dégg nee na mu sori la lool nga toog foo xam ni jëmm ji nga soxlaa woo mënatoo ko woo rawe na la lu bari ay kilomètres ba dëkk mal fa mu jëm wan la ginnaaw di dem mënoo koo yuux ba mu dékkati la neen mm-hmm. nee na am ko jaar ca wetam rek wokk ko ni ko xoolal kee <laughs> nee na mu gestu rek nga ni ko kaay ni mu ñëwaate loolu loolu mooy mooy taw féex dëgg-dëgg mm-hmm. lu waroon a jafeñ ci yow lool yoon wu yomb far feeñu la far jafe far far yomb mm-hmm. waaw kon taw féex day indi lu dëppaleeg li nga doon wut loolu mooy taw féex rek waaw xam nga day indi wifaax moo tax baatu taw féex ci arab day firi lu dëppoog la nga doon sàkku ci far yomb la lool mhm. fekk si la ci sa bopp mhm. Mhm. loola nag kenn yoru ko kuddut yàlla alxuraan dani wa maa tawfiqee illaa billaah amul ku yor tawfiq jooju kuddut yàlla sunu borom su yàlla nammee mbir mooy ñëw daal koy nekkal ci saa si mu nekk léeg-léeg ngay sonn ci mbir sonn ci lool fële nga dugg fa fekk da ngaa amagul tawféexi sunu borom rek waaye saa bu sunu borom dogalee tawféexam wàcc rek jeex na mbir ma moo lay wut si dootoo loolu mooy tawféex sëñ Tuubaa nag jël ko nag xam ni comme jaam yorul dara yàlla rek a yor jaam mënul dara yàlla rek a mën ndax jaam bi dafay tële léegi jaam bi day fàtte jaam bi day juum jaam bi day dee jaam bi dafiy jóge jaam bi léeg-léeg mu bëgg lu mënta réaliser wu mu xam ni kon suñu borom la lépp daje ci moom moo yor tawféex mu jël nag wax jooju yàlla ne wa maa tawfiiqi illaa billaahi amul ku yor tawféex ci ku dut yàlla sunu boroom ci kàttanam la tawféex nekk ci dooleem ci coobareem ci la tawféex nekk sëñ bu tëgg ci xasida xasida gi nag mu jël ko xaraf par xaraf par xaraf wa maa waaw ji da ciy def xaraf miim gi da ciy def xaraf gi xëcc maa gi da ciy def xaraf taa tombe da ciy def xaraf xaraf la waaw gi def bëy nii an xata in wallaahi mhm. dafa wax ni jubale naa man sëñ Tuubaa sama xar kanam mhm. waaw jubale naa mhm. ndax Ibrahima waxoon ni mhm. jël naa sama lépp jubale ko yàlla ngir mu gindi ma mhm. sëñ Tuubaa tam loolu la waxee ni jubale naa sama xar kanam sama lépp sama yéene sama xol li ci ëmb lépp day àndaale ci biir yéene jooju sëñ Tuubaa am moo tax mu ni kon jubale naa sama lépp dégg nga mat du yeddi dégg nga musliman may aji jébbalu jébbalu lillaahi ñeel yàlla waaw ma yàlla moo waxoon ni bu leen dee mukk lu dul ngeen jébbalu ci ci man bu leen dee mukk wala tamutunna illaa wa antum muslimun mhm. bu leen dee mukk dégg nga mhm. na ngeen ragal dëgg-dëgg yàlla nag seen borom xaqa mhm. tuqaati yi waaye nag wala tamutunna illaa wa antum muslimun waaye bu leen dee mukk lu dul ngeen jébbal ma seen bopp jébbal googu ñu def yàlla mooy xam ni jaam mënul dara ñu jébbal ko suñu lépp jaar ko ci ngeen ji diine di islam mhm. sëñ Tuubaa nag wax ni kon man sama jëmm mhm. ak sama xar kanam mhm. ak sama xol li mu ëmb yéene ko boole naa lépp jox ko yàlla àndaa léegi jébbalu ci moom jox ko sama lépp yaakaar ko ci lépp dëgg la boo ko defee nag wa saana nii ñoŋal na ma waaw saana nii mooy ñoŋal na ma ñoŋal mooy ku la protégé ba nangam di dal say moroom du la dal yow ah saa waaye am nga sens de yow lu tax rek booba la xamee ba léegi mosoo am problème. Mm-hmm. nga ne ah, yàlla ma musal rek. Mm-hmm. da laa ñoŋal a tax. Mm-hmm. mu ne wasaana nii ñoŋal na ma mooy. aar na ma moom yàlla. an xata in ci njuumte. voilà xoola xatax mooy njuumte. <laughs> fi mu ne am na ñoo xam ni boo xoolee rek erreur faaw mu nekk seen dund. te nit dañ naan nul n'est parfait. nit mënta ñàkk erreur. waaye Sëñ Tuubaa ne man génn naa ci loolu. du ma def njuumte ci wax du ma def njuumte ci bind du ma def njuumte ci sama jëf sama lépp yàlla mi dul jiw moo ma fàggul loolu may ma ko xanaa loolu may waxuwa lëfi kawnuhu lil yow ma farraxani farraxani wa an fu daal daala shakk wal xumam waaw daf maa dindil sekki sàkk ci sama xol mhm. dindil ma njàqare ci sama xol mhm. ah, kon loolu yàllaa ko dindi ci moom mhm. xam nga tey bu fekkee dindil ñu la sekki sàkk ak njuumte da ngay nekk di xel yaa naan lii la wala du lii loolu la du ko dal mooy mooy sàkku maanaam di def naan est ce que moom la est ce que du moom loolu du dal neen ne du ma dal yàlla ma ko dindi njàqare itam ju la teree nelaw metti lool ci yow suñ suñ tubaane yàlla teggi na ko sama xol farraxani waaw bi ma bëggalee la ma defal ñoŋal ma. an xata in. wallaahi mhm. mhm. ci njuumte ak po. kat wàcc na mësula moy mësula fo. Mhm. ku nekk dégg nay waxam. ku ne seere nay jëfam. képp ku topp ndigalam doo tala mooy yàllaa ka fo. daal ni jëfam a gën jëfi ku ne. waxam a gën waxi ku ne. waaye ma gën waayi ku ne waaye ja dëgg nag du fo. képp ku nee fa waaye ma muy moya ka fa xomaa ka ma képp ku nee fa waaye ma weddil ndegam gis nga fa daal wurus bu mhm. yàggee am xomaag mhm. xaalis bu yàggee am xomaag mhm. lépp lu yàgg am xomaag xomaag xomaag a fii ruus ak a fo daal wurus wu sell la waayem dërëm bu sotti la mhm. ku amee ab rax yaru la mhm. ab raxa bon day taxa fo taxa fo dëgg la kon gis nga mhm. sëñ bi nee na lépp luy fo ak lépp luy njuumte wala erreur yàlla ni tëlewul ci dara teggil na ma ko man muy wasaane ni anqata in dama cee protégé mooy wasaan damaa ñoŋal ci erreur ma koy def wala ngeen gis ma ci am pox sama dara du dem ci fo du ci sama kàddu du ci sama wax bi ci sama dara loolu yàlla ko defal leen ci tawféexam mu ne mat mu nekk nag ba tey ci tawféexu suñu borom waaw ndax dina am weddikat bu defe naan waaye loolu dafa mën a nekk ku dul juum mhm. maa ngi lay li mu ko tëgg nge nag mhm. wa maa tawfiiqiya illaa billaahi mhm. su boobaa la koy tontu mooy yàlla da koo mënu la ma ah, loolu ma ci duggee rek bokkaale wala ma juum yàlla mën na lépp yàllaa ma ko defal waaw kon sëñ bi defalu ko boppam nee na yàlla moo ko defal loo dëgg la wa saana nii waaw mu ne maddu yaddi waaw mu ne maddu yaddi tàllal samab loxo Ah. nama affiché xasida gi li xayrihi laysa yakun waaw sëñ sëñ bi nama nama nama affiché xasida gi sëñ daam ko ko waaw mm-hmm. mu ngoog li xayrihi laysa yakun mu ni maddu yaddi mm-hmm. tàllal sama loxo man mm-hmm. waaw maddu yaddi mooy tàllal sama loxo bii man sëñ Tuuba li xayrihi ci keneen ku dul yàlla fi mu ne nii ku ko waxoon balaa ngoon nga weddi sa bopp ku ko waxoon ku dul sëñ Tuubaa balaa balaa ngoon rek nga taxaw di wut audience ci Macky Sall ku <laughs> ko waxoon ku dul sañ Tuubaa balaa ngoon rek nga xam li nga wut leen sëñ Tuubaa wuteeg yow moom nag yàlla dogal na ba ko nguur wuy see ci lan ay wuur lañ la bëgg a booleel ñu teg la fi ñu tegoon sa wéejur di la jox ay jur di la jox xaalis di la jox àdduna mhm. la mu tontu woon mooy xasbiya rabbi wak dafay tubbi lasturaadiya doyloo naa yàlla yàlla doy na ma mhm. rus naa taalal sama loxo koy jeexal du ma jaxasoog bunti wóor ñi mhm. soxloo ma seen dërëm mhm. kon kooka da ngay xam ni lii mu wax moom dund na ko dëgg la ndax mu ni maddu yaddi tàllal sama loxo li xayrihi ci keneen kudut yàlla lay sa yakkoon du nekk mukk ci man Sëñ Tuubaa nekkul te du nekk lay sa yakkoon nekkul. te du nekk te du nekk sax. Ah, tàllal sama loxo. ci keneen ku yàlla di sàkku ci moom. loolu daal mësut nekk sama dund. te du nekk ba abadan na. waaw kon mu ni maddu yaddi. li xayrihi lay sa yakkoon. ñu ne ko lu tax. mu ni ndax wa innahu moom yàlla. xat xaada lii kun fa yakkoon jox na ma kun fa yakkoon. eh waay. Ah, kun fa yakkoon yàllaa ko moom. su ko neexee jox ko jaamam. yaquudu lii kun fa yakkoon. yeneen ci aleyhi salaatu wa salaam. xeexu Tabuk. bi mu mettee lool. Mhm. mu soxla aboo Zarin ñëw. Mhm. Abu Zarin alxifaar yi ñëw. Mhm. xeex bi metti lool. waxtu njolloor ñépp sonn. mu xam ni aboo Zarin dafa xam stratégie xam yoon yi fekk boobu aboo Zarin daa amoon ngànt xeex siwul wenn takk ndeer di romb yanant bi ni ko kun Aba Zarin nekkal aboo Zarin mu nekk ci saa si Abu Zarin boroom xam-xam yi ci téere yëpp nee nañ keroog yanant bi dafa jëfandikoo kun fa yakun kon kenn du weddi ni am nañu ko am waaw kun fa bu ñëpp duggee aljana moom la ñuy amee képp ku dugg aljana kun fa yakkoon nga amee loo bëgg mu ne sëriñ bi ci place yu baree baree baree bari mu ni yàlla woo matal na kun fa yakkoon jox na yaquudu li kun fa yakkoon xaaji min ka bilaa xiqatin wala taxaaji fi place yu bari moo tax fii mu ni kon du ma tàllal sama loxo di ko jox keneen ku yàlla sama borom te moom yàlla kat maa yaay nag du ma tàllal sama loxo di ko jox keneen ndax li ma jox a tax yàlla woo matal na ma kun fa koo xam ne su ma bëggee mbir mu sotti nu may jëmee ci jaam boo mm-hmm. xam ne mën ta sottil dara mm-hmm. di ko talal sama loxo kon damay dem ci ki nga xam ni su ma bëggee mbir jox na ma lay nekkal mbir ma mm-hmm. loolay kun mbir moo bëgg mu nekk dana nekk ci kàttanu sama borom kon yàlla mooma <laughs> lay sama loxo waaye wëlis ma koy tàllal keneen koo xam ni dëgg la ah, du dara waaw ay ca mu teg aw daanii waaw kitaabahu ilal naan yàlla dénk na ma téeréem bi alxuraan ca yàlla dénk na ma alquran ba biir aljana nag feeg demagunu aljana ñu ngi ci àdduna bii di dund ba keroog ngi tàbbi biir aljana man la yàlla dénk alquranul karim loolu tam da koo wax waaye da koo jëf te ne sëñ Tuubaa bayit bu ma la wax fii rek mën naa la woon fi ko jëfe mhm. waaw nga wax naa la bayit bu njëkk ba mhm. damaa jébbal sama lépp yàlla mhm. déedéet xasida gi bu jeexee daa am yeneen bayit yoo xam ni oh, dafa correspondre ak xasida yi te ay bayit bayit la waaw mu yoo xam ni yëpp dama la koy officiel nga woog kon baax na euh, na ñëwaat ci xasida lii mu mu ne aw daani kitaabahu ilal jinaan dénk na ma mhm. téerim bii di alquran ba keroog ñuy tàbbi aljan képp ku dal ci kaw alquran di ko ŋàññi man nga ŋàññ képp ku teral alquran man nga teral ku fonk alquran man nga ko fonkal mhm. ku yëkkati alxuraan mën nga ko yëkkati moo tax njabootam ji ko dégg foon fekk alxuraan seen xale kii nuy fàttaliku rek nga xam ni li fii ginnaaw suba mooy màggalam di sëñ Abdul Ahad Abdul Ahad mm-hmm. ku ne gis na mu defar kër ba mu jekk mm-hmm. déewlu ca boppam de déewlu ca keneen mm-hmm. alxuraan la ca déewal yàllaa ko fayee nag mu wàcc liggéey ñu def ko fa waaye alxuraan la ni woon faw mu wutal ko kër ndax fi ko sëñ Tuubaa teg wax na tam ni alxuraan dey am na lu ma may boppam sëñ Tuubaa lu mu mayul keneen moom sëñ Abdul Ahad daal ni ndax am na ku ñëw fii xam naa turam xam turu ndayam ak baayam xam dëkk ba mu jóge woon mhm. da koo jox alquran bi mu téye ko rek di ko fari xan kasabtum ca ca baqara moom la ñu fàttee sidda mu ne wallaay bañ ko ubbee noonu la demee mhm. koo xam da nga koy téye rek xam li ci manqué nag mhm. yéemoo cee kenn kon alquran dañ koo dénk sëñ bi yàlla ko dénk moo tax di nga fekk ci place yu bari dégg nga mu wax ni raamal kitaabu kawnuhu ma'i bila tafaaruqin wa umri qad qubila dégg nga mu wax ni jaawartullaaha bi kitaabihi ilaa duxuuli jannatahu mhm. dëkkaale naag téere bi kon da koo moom mhm. dégg nga mu wax ni malakanil kitaaba mhm. malakanil quraana yooyu yëpp wax na ko malakani tanzila fa ne sëñ Tuubaa wax na fa ni ko yàlla moom loo alxuraan kon alxuraan jooju dañ ko koo dénk moo tax mu ni awdaani kitaabul kitaab kitaabahu yàlla moom loo dama téeréem ba ilal jinaan ilal jinaan wama li yaqtaara wa tayyabal jinaan ak la nga xam ni nag moom la ma tànnal parfois ma tànnal la dara te doo ko mën a te doo ko mën a am man la am maa la yéene xaameur bu neex am maa la yéene avion nga koy dawal am duñ jóob maa la yéene nga am ay château pourtant yéene naa la ko waaye dama ko mën ta jox yàlla nag moom mi nga xam moo may tànnal lam ma tànnal dama koo man a jox moo tax lam ma tànnal la ma jox tam <laughs> dégg nga wax ak lam ma tànnal yàlla dénk na ma alxuraan jox ma tam lam ma tànnal nga xam ne loolu la bëgg ci man man mm-hmm. sëñ Tuubaa mm-hmm. loolu dafa jàppandi ci man ba ma jox ko man wa tayyabal janaan ba mu ko defee nag mm-hmm. ca la sama xol gis nga arab mu baree sew sew al jinaan al janaan janaan janaan mooy firi xol boo ko teg janaan ji firi ajjan ba mu ko defee ci la teeyale sama xol waaw nga xam sama xol teey na ndax koo xam ne yow yàllaa farale moo la farale yàllaay yoo mat di la jox yàllaa la may boobu sa xol day teey mhm. doo am benn problème doo am stress doo am problème mhm. ndax yàlla moo teeyal sama xol moom mi ma wommatal alxuraan dénk ma ko waaye itam lam ma tànnal mu fexe ba ma jot ca loola mhm. mu nag kon nag tawfiiquhu tawfiiquhu raafaqanii fii baatini kon tawfiiqi sunu borom muy lan lépp loo bëgg jot ca lépp loo bëgg mu jàppandi ci yow loolooy mooy tawfiiqam mun tawfiiquhu tawfiiqam raafaqanii ànd naag man sëñ Tuubaa fii baatinii ci sama biir baatin mhm. baatin mooy lan li ma nëbb te bët yi tegewu ci loolooy sama baatin mhm. zaahir mooy li nga xam te ni fàng bët yi tege ci kon li nëbb ci man te bët nu cee tege xam naa ni tawfiiqu yàllaa ànd ak man ne ci sama jëmm ji wax nga léegi bayit bu ko nuru mhm. ca muqaddamatul am daax wax nga ne alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa anna al muqaffa man xalaaniya yardau wax nga léegi ni sëñ Tuubaa nee na damaa biir leer na ma ni yàlla ànd na ak man mhm. te ku yàlla àndal victoire rek ngay am mhm. feet dong ci ngay nekk lu baax dong ngay am dëgg la kon nee na euh, tawféexi sunu borom mhm. dafa ànd ak man sëñ Tuubaa ci sama baatin loo tax lu ma bëgg ci biir bu ma ko waxee mu nekk lu ma xalaat ci nit su ma ko su ma ko xalaatee ci nit bëgg ko mu nekk nga xam ni sëñ Tuubaa àgg na ci lu noppam dégg sax faf yàlla def ko àgg na ci wax mag ñi deen ma wax lu lu ngeen bëgg ndax li sama nopp bi dégg la yàllay def kon kooku da ngay xam ne tawfiq suñu borom moo nekk ci biiram mhm. mu ni wa zaahir yi ak ci biti mhm. biir daa am biti am mhm. extérieur dafa am intérieur am mu ni tawfiqi suñu borom ànd naag man suñ tuubaa ci biti fi ci biir fii baatini wa zaahir yi ak ci biti wa saalu lii waaye yàlla sàmmal na ma ñoŋalal ma samay dëkkuwaay dégg nga fi ne bu nekkee tuubaa kenn mënu faa yóbbu safaan bi Touba kenn mënu fa yàq dara. déedéet Daaru Salaam kenn mënu faa yàq dara. Mhm. Daaru lu mu waxtu kenn mënu faa yàq dara. Mhm. ndax ay dëkki Sëñ Tuubaa ay ay bërëb ay mawaatin lañu. Mhm. nee na yooyu yëpp yàlla ko ñoŋalal. da ko protéger. aywa ñu jàll. wala li xëyri kadarun wa maradun. walintaha. walintaha ilal jinaani xaradu gaaw nee na wan na ginnaaw. jëm ci kudut man. wan na ginnaaw wane na ginnaaw. jëm ci fudul man lan. nëx nëx nëx nëx problème sur problème am na ñoo xam ne seen dund yëpp problème la mhm. saa suñu xëyee rek nekk ci dang-dang mhm. du ñu noppalu ba keroog ñu dem ci bàmmi mhm. loolu nag man du dal am na ñoo xam seen dund yëpp ay lor la rek nëx nëx daal ak lor dem na feneen wëlif mu may dëgg man man sëñ Tuuba te dëgg mën la ci man ba biir àjjana aw tagg wu rafet bu may tagg yàlla kon li may jul mooy xéewal yoo xam dama koy tagge rek sama borom waaye lépp luy lor wala nëx nëx dem na feneen mu ni faja ani bi busarin tadduumu waaw niamal karimu zol baqal qadimu mhm. mu ni bett na ma fajaa mooy firi bett mhm. mooy li yaa da maa defal surprise bu garaaw waay sëtëtëtët mhm. surprise bu gën a neexe lii loolooy faja ani bett na ma kanala la bett mu ni neex ma amul morom alkarimu laa wax yàlla mi nga xam mooy aji tedd neex ma amul morom zol baqa moom mi boroomuk des bu fi ñépp jógee moom dafiy des mhm. alxadib moom mi aji jiitu lépp te kenn mhm. xamul nu mu sosoo mhm. kooka laa wax ni bett na ma bi bu sëriñ te doom ci mbégte mu sax dëgg la mbégte mu sax laa am bis bu jot damay bég ku ànd ak man di bég ne xoola cant gi nekk nun ñii di wax ci dëgg sant rek sant rek amuñu benn problème àdduna dëgg la amuñu souci yi dëgg la toll ñu ngi sant àjjana la ñuy dund ñun te demaguñu fenn dëgg la waaw loola loola sëñ Mbay ni euh, fa jiiraanuhu tuubaa lahum xabla mawtihim mhm. dañ bay jaxate nee na dëkkandooy ci Tuubaa ñi ànd ak moom farak moom mhm. ñeenaa leen ndax ñoom àggana la ñu am mhm. avant ñuy dee ñoom avant ñuy dee ñu ci àggana lañ dëkk yan xaaduli min maaliki takarrumu waaw wa min nabi wa min nabihi ataanil karamu waaw na affiché mu ni wan xaaduli waaw wala yan xaaduli na xam nga woom mat na boog teg woom matu na mhm. in mooy woom matu maanaam la ma soxla moom mooy woom mat boppam mhm. man maa koy woom mhm. moo tax mu ne yan qaadu lii woom matu na ñeel ma min maaliki min maaliki jóge ci sama boroom takarum takarum xeetu tedd nga yépp xeetu tedd nga yépp a wommatu xeetu teraanga yépp a wommatu jóge ci sama boroom wuy sima mën a sëñ Tuubaa wa min nabiihi jóge tam ca yanantoom ba yanantoom ba day yanantu yàlla Muhammad te gën gi mindeef mhm. xeetu tedd ngay fa nekk yëpp wamatu nañ ñëw ci ci man ataanil karam ataanil karamu ba mu ko mhm. defee nag la gën a tedd kon mhm. wala boog la tedd te te nekk uh, ak teddange loola daal dikkal na ma man sëñ Tuubaa bay du ci topp nag neex na lool sëñ Ablaay waaw xaadali allaahu waaw jaza allaahu waaw bila adan wa ajra abdillahi waaw nee na allaahu yàlla xaada wa mat na li ya ñeel ma kan allaahu yàlla lu ma womatal jaza allaahi fayug moom yàlla maanaam yàlla ci boppam moo jël salaire am fayam womatal ma ko jox la nga xam ne yàlla rek ko mën a fay ab jaam loolu la yàlla jël womatal ma ko mën a sëñ Tuuba te bi mu koy womat nag bilaa asan tegu ci wenn lor nag wenn lor amu ci dégg nga wa ajra abdullahi womatal na ma tam yoolu ku mu nangu ni yow ab jaamam nga bu wóor mhm. yoolum lay jox jox na ma fa ngay jaar nag ba yàlla ne jaam nga nañ ko xool mhm. ñu de dégg nañu ci eh, eh, yenentu yàlla ayuba yàlla ni ni'mal abdu mhm. ni'mal abdu innahu awaab moom moom mhm. yàlla nangu na jaamam dégg nañ tamit subhaanallazi asra bi abdihi laylan waaw fa day wax na ko yenant bi baatu abdu bala la yàlla waxoon yow mi abdu nga sëñ Tuubaa nag ni lu muy wommatal kum ni abdu nga nag jox na ma yool booba fu muy xoole daal jaamam ba ni kii moom nangu naa ni sama jaam la ndax mësuma bokkaale mhm. nangu naa ni sama jaam la mësta mooy sama ndigal mhm. kii daal gërëm naa ko mhm. sëñ Tuubaa nee na yool bañ koy fay yàlla def na jox na ma la yaquudu lii busaaratan qadaru man waaw lahul baraaya wal fiaal wa zaman mu ne wommatal na ma yaquudu lii wommatal na ma dégg nga busaaratan waaw busaaratan mbégte xeetu mbégte yépp la ma wommatal qadaru ma li ki ma ko wommatal nag mu ni mhm. kàttanu sunu boroomam ko wommatal mhm. day bañ kenn di ci dugg naan mhm. naa nang loolu daa mën a nekk yàlla ku ku xam ni moo am xudra am iraada kàttanam ak ndogalam ndogalu sunu boroom moo ko def waaw ah, te nag bokkoon na ci ponk ci ngëm yàlla juróom benn la ba ko juróom benn mooy gëm ndogal ndogal bu ñëw mu neex mu naqari da nga koy nangu kon sëñ bi nee na du man naa ko wommatal sama bopp de ndogalu yàlla miy dogal te kenn mënu ci dara lu ko neex lay def moom wommatal xeetu mbégte yëpp te moom yàlla ñoo ko wommatal nag la woo ñeel na ko albaraaya mbindeef yépp loo mhm. ngeen fi gis yàllaa ko sàkk moo ko moom jëf yépp tamit yàllaa ko moom jëf bu ngeen yàlla mhm. jamono tamit xeetu jamono yépp yàllaa ko moom mhm. kon ki moom jamono yi moom jëf yi moom mbindeef yi dund ci jamono yi ak di jëf-jëf yi yàlla moo ma kàttanam ak dooleem ak coobareem ak ndogalam mhm. moo ma wommatal xeetu mbégte yépp azaba anni al mukarrimu al hadan wa xaadili adhaafa maa minit tadan mu ni sama boroom demal na mhm. demal na mooy dindi na mhm. wëlif man kana ko dindi al mukarrimu yanantu bee ko moom kon yanantu bi nga xam ni yàllaa ko teral teddal ko moo ma dindil ba mu dem feneen fudul man lépp luy njàqare sëñ Tuubaa ne du ma am njàqare mukk mukk mhm. ndax yanant bi yàlla favoriser mhm. mu gën ñëpp mhm. te ku ko liggéeyal fayu moo ma dindi li njàqare dàq mu dem feneen futul man du ma dëgg ma waaw mu ni ah, na ma nag xeeti yoo xam da koy mu ne a mu ne azaba déedéet mu ne lii xaa dafaw xamaa kasabtu ar ajra waaw wala yuwajjihu li nahwi zajra nee na wommatal na ma xaada lii mhm. wommatal na ma mhm. faw xamaa kasabtu lu ëpp fuuf la ma fàgg fàgguloon sama bopp mhm. yow nga fàggu ba noppi nag naan cëy man de denc naa un milliard far sunu borom ñoom ñi la may naa loo xam mënatoo ko wàññi yow léegi nee na man la ma fàgg woon yàlla wommatal na ma lu ko ëpp fuuf loo xam ni ëppante nag di ko xalaat ajaraat ci ab yoon li ma doon wut man yàlla may na ma ci yool fay ma lu ko ëpp te dootuma dëgmal li nax wi ci sama wàll jaaj jajji xam nga jajji mooy ñu lay mhm. xas ci dara naan la mhm. da ngaa juum nag yaa def nangam mhm. loolu duma ma dëgg ma kenn du ma jajji ci dara ndax defu ma benn juum te buñu may jajji lam yen hu nii makrun wala xaruuru waaw wan xaadalii fii aadati buruuru nee na lam yan du ma dëgmal maanaam du ma jublu makrun pexe kon pexekat yi nga xam seen yitte yëpp mooy nekk ci réseaux sociaux yi di jéem a pexel yoonu mucc bi yemoon na teg ci suuf duñ dem duñu am réussite ndax ñi leen magoon ñëpp da ko doon jéem dañoo yàqule ndax man kat du ma dëgmal mukk du ma wut si mukk makkurun pexe wala wuruurun du caaginu du caaginu waru xam nga waru mooy jàpp ne li nga nekk noonu la fekk du noonu du noonu mhm. kon nee na pexe ak waru duñ ma duñ ma duñ ma dëgmal man sëñ Tuuba mhm. te dina wommatu jëm si ci man mhm. li bépp xeetu mbaax ak njekk fii aada ci samay aada xam nga luy aada habitude xam nga dafa am lu ñuy wax ay baadaat am lu ñuy wax ay aadaat la ñun lii daal di lii lii moom aada la di da koy def rek waaye ah, du diine aada la. Mhm. nee na sax man aada su ma ko doon jëf tey. Mhm. aada. Mhm. moo xam may def naa nangam loo xam ne aada la. du tere yàlla di ma ci womatal di ma ci defal ay xéewal ak ay may ak ay mbaax. su ma defoon sax aada day nekk lu baax ci sunu borom. sunu borom du koy bëgg. mu dellu ñëwaat ne aqaama nii. fii maa yëkkoonu radia. waaw hanni bihi man xaadali ak radia. waaw ah, nee na yàlla taxawal na ma. yàlla mu taxawal nga taxaw. yàlla taxawal na ma dëgëral na ma jàppale ma taxawal ma ci lépp loo xam ni day waral ngërëm ngërëmam luy luy waral mu gërëm ma rek yàlla ma ca kàttanal jàppale ma ca taxawal ma ca li mu ni nag moom yàlla mi nga xam ni wommatal na ma ci daraja yenantu bi alayhi xem samay xémmim téef agrab yaa mooy samay xémmim téef yi nga xam moom laay choisir du ko bëgg samay choix yooyu la ma yàlla jox samay préférence mu ni bientôt mhm. ay ca bientôt te bixtiyaar yi waaw bixtiyaarillaahi waaw wasaani nii an jumlatil malaahi waaw nee na jaay naa jaay naa samay tànneef jënde ko fi yàlla samay tànneef man wutuma dara waaw li yàlla wut lay wut man man yi ma waroon a tànn naan yii laa choisir mhm. dama ko jaay jënde ko li ma yàlla tànnal yooyu ma dàqal sunu boroom nag daal di may nee mhm. ñoŋal walif lépp luy waral ay caaxaan ay fo mhm. lépp luy waral ay fo ak i caaxaan mhm. sunu boroom mooma ca ñoŋal ba duma ma du mhm. waaw mu tekke ni ataytuhu ataytuhu kulliyati bila nizaa waaw wasaana nii am ma naxaasu zawur zawur nizaa ok nee na ataytuhu jox naa ko moom yàlla jox naa ko kulliyati sama lépp kulli nag waxoon naa la ak kulliyat yi bokkul bokkul déedéet waaw mhm. kulli moom man nga lii ak lii mhm. kulliyat yi moom lu ma am ñooy gis rek mhm. jox naa ko yàlla desalu ma dara ak moom en say tuhoo jox naa kulliyat yi sama lépp bilaa nisaan ci lu dul ñoddeeti ko ci moom rocciwaat nisaan mooy rocci joxe dara par di ko nocciwaat di ko jël du ma dal wasaana nii te fegal na ma am maa naxaa zawoo nisaan la nga xam ni ñëy xëccoo la ñuy xëccoo mhm. xëccoo sëñ Tuubaa du ko def mhm. moo tax bépp murit bën la murit laa mhm. dajeeg mbokk muritam ñuy xëccoo ci mbir seen murit wéru muritub sëñ Tuubaa bu gisee mbokk muritam mu gën a bëgg mbokkam du nee lépp luy waral ay xëccoog coow du ma dégmal yàllaa ma ci ñoŋal moom yàlla mi nga xam maa ko jox sama lépp te dootuma ko nocc moo ma génne ci lépp luy xëccoo mu ne li wajhil karimi qad axadtu waaw maxtaari li waxaak sahu nabattu nee na ngir jëmmam dong moom yàlla waxuma ngir jëmm kenn ngir jëmmi yàlla sama borom kepp ñu ni waaw mii aji tedd xat axastu ci laa jàppe lu may jàpp yàlla tax ma jàpp lu mat a bàyyi xel nga koy jàpp nga jàpp ko te yàlla tax koy bàyyi te la yàlla tax nga jullit noonu lay mel mu ni kon dinaa jàpp man sëñ Tuubaa ci dëgg-dëgg ngir jëmmi yàlla mii aji tedd képp moo tax may jàpp te bu may jàpp tamit damay jàpp maaxtaara lii la nga xam moom la ma tànnal moo gën muy lislaam waa wa aksuhu contraire loolu nag muy ay caaxaan nag ak kéefër contraire ba mu ni nabastu kon nabastu aksuhu mooy dàq naa ko sànni nabastu mooy dàq sànni waaw nabasa mooy sànni na kon sànni naa lépp loo xam ne yàlla nekku ca wala lislaam nekku ca jël la yàlla nekk ak lislaam tànn loola jàppoo ngir jëmmi yàlla lahoo xitaabi wa li xayri wajjaha hmm. xayra ridaa huwa ridaa li tajaha waaw mu ni lahoo ñeel na ko xitaab bi samay waxante mooy samay wax ak moom wax yi may wax yépp yàllaa ko moom keneen moomu dégg nga wa wajaxa li xayri xayru ridaahu te dina dëkkmal ci keneen ku man suñ Tuubaa lu dul ngërëmam lu dul ngërëmal yàlla keneen lay dem ci moom waaye du dem ci man wantaxaa li arrida waaye nag luy ngërëmal yàlla dina ma dëkkmal dina ma wut si ma waaw ñeel na waaw mu ne adhabta kullama yashu aw yadur li xayri nahwi laysa yanhuwan yadur waaw mu ni nag yow deñal nga yow yàlla demal nga lépp loo xam ni demal nga lépp loo xam ni dafay ñaawal mbir lépp lu ñaaw wala muy lu warul rek wala luy lor dindi nga ko demal nga ko li xayri mu jëm ci keneen ku man wala li xayri nax yi mu jëm ci feneen fu sama wàll lay sa yan xóoni ya durru mu ni lépp luy lor du ma dëgg ma la man sëñ Tuuba mm-hmm. lor daal du jëm sama wàll du jëm sama kër du jëm sama njaboot haddiyati muusilatun lillahi mm-hmm. aasimatun min dararin wallahi mais nag sama xëdd waaw sama xëdd ya man sëñ Tuubaa mhm. mu ni àgg na ci yàlla de mhm. li ma ko jox muy sama xëdd ya mhm. àgg na ci moom bu wér a wér a wér àgg na ci yàlla lu ñu àggal ci yàlla sama borom ba pare tam yàlla musal ko ci lépp luy lor ak fo yàlla di ko cee sange lépp luy lor ak fo sama hëddiya du ànd ak lor du ànd ak fo du ànd ak àgg na ci yàlla loolu mooy xasida ak wa ma tawfiqi illa billah eh, subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun jërëjëf sëñ Ablaye Euh, sëñ Ablaye dañuy faral di gis sëriñ bi buy tënk ak xasayda hmm. ni mu ko defee ci way naka la ala xuluqin azimin wa kaana xaqan nooru daare ni saadat daare ni tonfatu lenn lu ci nekk dana am lu mu ko tënkee hmm. ci biir tënk bi noppi day amaat tarjumaan hmm. tarjumaan jooju ci lay bokkal li nga xam ne ni mooy secret xasida gi la muy sàkkoo ñaan ci biir xasida googu la mu bëgg suñu borom defal ko ko nga xam ne loolu tiitras la boo xam dafay am sëñ daam indil ma benn euh, tarjumaan Euh, indil ma ci benn fi muy wax kataballahu tabaraka wa taala euh, mi ngi nii kataballahu tabaraka wa taala ana katiba hadihi al urufi jahalahu lahu tabaraka wa taala xujjatan ala nasara hmm. wal muntathirin wallahu ala ma naqul wakil waaw nee na xam nga kataballahu yu yéeme la mm-hmm. loo fi fekk rek mooy lu ko yàlla may ba jox ko ndigal ni ko bind ko mm-hmm. waaw yàllaa koy may ba pare ne ko lii ma la may bind ko mm-hmm. jaam ñi xam ko ci yow su boobaa bu ëllëgee yow mal xiyaam kenn du taxaw naan wa xamee ko lay du am. waaw ak sëñ Tuubaa moom lim ci jublu mooy sant boroomam mi ko defal tawféex jooju ngir ñëpp jot. Mm-hmm. njariñ laa ñëw leen jariñu. Mm-hmm. boo amul keñaan. Mm-hmm. te bëgg a jariñ ñëwal jariñu. soo taxawee di weddi nag lu ñu la wax nga ni mënta nekk su ëllëgee doo taxawaat naan xawee mu ko nii. moo tax moom bind na yëpp yi ko yàlla may. te décrété ko te dootuñu ko effacé. ni yii yàllaa ma ko may. te na ko affiché mu ni kon kataballaahu. na ko affiché mhm. kataballaahu mhm. tabaraka wa taala mhm. mu ne yàlla bind na ci kàttanam ak coobareem moom yàlla mi aji barkel ci lépp tey aji kawe ci lépp ni anna kaatiba haazihil xuruuf ni man sëñ Tuubaa mi bind xaraf yii kon yàlla moo dogal loolu lii muy bëgg a wax yàllaa ko dogal mindeef mënu ko dogal nee na yàlla dogal na ni man sëñ Tuubaa mi bind xaraf yii jaalahu llahu tabaraka wa taala hujja mm-hmm. ala nasara mm-hmm. yàlla def na ko muy ab pakk défense mm-hmm. wëlif nasaraan yi di ko mënal dara kon ñi ñi réer mooy ñi nga xam ne ñoom dañ naan nasaraan bi nangam nasaraan bi mënta agsi ci sëñ bi sëñ Tuubaa suñu boroom a ko def muy pakk muy défense ci kaw nasaraan yi diggam ak ñoom ak ñi nga xam ne dañuy nasaraan nasaraan lu mhm. ñaar yi ma ta xamangook mhm. bële mooy at nasaara bële mooy almutanasiriin mhm. mooy ñii nasaraan nasaraan lu léegi saa boo xëyee gis loolu sax li sëñ Tuubaa waxoon ñoo xam dañuy nasaraan nasaraan lu jéem a bañ affaire sëñ Tuubaa naan way avec la république il faut éviter certaines choses c'est pas bon avec la république nangam nangam c'est contradictoire la république on est dans un pays laïque nangam nangam ñooñu dañuy nasaraan nasaraan sëñ Tuubaa nee yàlla def na may pakk défense boo xam ni ko jaar ci man te tënku ci li ma tënku nasaraan du la man a yàqal dara ñii nasaraan nasaraan duñ la mënal dara te duñu am ci man wàllu mukk ne wallaahu alaa maa naqulu mu ne lii ma wax nag yàlla mooy sama seere xam naa yàlla bu baax maa ko gën a xam mhm. te lii ma wax na xam ngeen du ma waxee bakkan lii moom yàlla laa ci jël seere mhm. wallaahu alaa maa naqulu loolu moo mooy mooy daan li ñëpp sëccu wax day wax lu kenn mës ta dégg fara ne ah yàlla la jël seere de lawul <laughs> mahfuus ni mu ko doon jëfandikoo ci ay bindam. waaw tarjumaan jii ci bëgg topp dana ci ñëw. waaw ni mu ko doon jëfandikoo ci mbindam. waaw mu ne kataballaahu tabaaraka wa taala fi lawhil mahfuus anna kaatiba haadihi al xuruufi qaddamahu rabbuhu ala jamii al ngi nii. kataballaahu tabaaraka wa na moom yàlla mi nga xam ni moo dogal lépp lu am moom. Mm-hmm. te ci lépp not lépp. Mm-hmm. bind. fii lawhil mm-hmm. foofa nag. <laughs> weddikat yi duñ fa àgg moom mm-hmm. lawhul mahfuz foofa moom àlliwa jëy suñu borom di dogale mm-hmm. fa la def dogalam yi mm-hmm. lawhu jooju nga xam ne tey dañ naan xalam ak lawhu la njëkk a bind waaw boo demee ci téere bu ñuy wax ba badaa'i zuhur fii ay duhur téere bu am solo la uh-huh. da gis xalam gis al lawhu bu leen yàlla di sàkk yi xewoon foofa yàlla njëkk a def mbiram mu sax fa te kenn du ko dindi muy àlliwaam jëmuy bindee ak xale ba jëmuy bind nee na sunu borom dogal na bind fa ci ndogal ni anna kaatiba haazihil xuruuf ni ki bind xasida gii muy sëñ Tuubaa xaddama hoo jiital na ko rabbahoo borom ala jami alamin ci mboolem mbindeef yi mhm. nee yàlla jiital na ma ci mboolem mbindeef yi waaw ca alors euh, jërëjëf sëñ ci leeral yu am solo yi ndax dafa am hmm. luy jiitu xaside gi muy tarjumaan gi ah. ginnaaw bu mu defee tëgg bi ba noppi hmm. ma am ay bayit yi ngi ma bëgg a cuqi ndax tey damaa bëgg bu ñu jeexalee xaside yi hmm. eh, dama bëgg tey ma barkeelu nga mosal ma dara ci maam Cheikh Issa Diène tey damaa bëgg nga dugal ma ci moo tax dinaa dugal sëñ Cheikh seen raaya léegi ginnaaw bu ma jëlee ay quelques téléspectateurs ci ligne bi lay doon eh, mais xaside gi bayit wi si Ablaye dégg nga li mu wax daf ne xamaa bila danaa anil qitaali wa kaana xaqan wa anil jidaali waaw aywa ana sëñ daam affiché ko euh, xanaa sëñ Abdou naanagul café euh, ama bilaadana anil qitaali hmm. wa kaana xaqan kaana xaqan wa anil jidaali waaw nee na euh, nekk na maanaam aaral na aar na ma mhm. bilaadana aar na kon sunuy réew mhm. sunu réew yépp mhm. xaar na sunu réew yépp kana ko aar yàlla sunu borom mi nga xam moo wax ni war na ci moom mu dimbali way gëm ñi yàlla moomu xaar na sunu réew yépp ci xeexkat yi yàq ak way bañ yi waaw alqital mooy ñi nga xam ni ay terroriste lañu dañuy dugg ci am réew indi fa mu di rayante ak di def ay kamikaze ñooña sunu borom moo ma moo aar sunuy réew ci ñoom mu ni nag kon dafay war ci sunu boroom moomu nga xam moo ñu aar mu aar ñu ci euh, xeexkat yooyu ak ci ñiy dàggasante maanaam ñi nga xam dañuy ñëw di weranteeka ka dàggasante ak ñi nga xam dañuy xeex dafa war ci sunu boroom mu aar ñu ci moo tax sunu boroom aar nañu ci mhm. mu aar ñu nag la mu waxoon ni wakaana xaqan mhm. day war ci yàlla sunu boroom mu aar way gëm ñi mhm. yàlla moo di protéger loolu la jël nag aare ma ci ci walif samay réew xeexkat yi di fa dugg ak ñiy dàggasante Eh, yooyu yëpp duñ euh, bayit bii nag. waaw ak ommatu la. ak ommatu. parce que fële dafa waxoon ne. alamtanil xayba. xataa sirtu muntabian. Hmm. antal alimu alladi allamta dafay mel ni sëñ sëñ daam beneen bayit bi ci topp. Hmm. dal cee ñëwaat tey nag mun a yaqoo dalil baax yi. ruyuban hmm. la tura. yaquudu lil baaqi guyuuban laa turaa fii abadin wa inda xayri lam turaa waaw nee na albaax yi mooy yàlla mi aji des ci àdduna bu fi ñëpp jugee mhm. ñépp ay faatu moom ku dut mhm. yàlla dañ fiy jóge mhm. yàlla du fi jóge nag moom mu ne albaax yi yàlla moom nga xam ni moom mooy l'éternel du fi jóge nga xam ni moom moo am éternité du fi jóge yàlla moom wommatal na ma ruyoo ban ay xaybu mooy yu mhm. nëbb yoo xam ne jaam ñi mënuñu koo xam mhm. waaw matal na ma yooyu mhm. xaybu yoo xam ne nag laa toraat dee fee su ko gis dee fee su ko gis fii abadin ba faw inda xaybi ci kenn ku dul man walam toraa te duñ ko te gisuñu ko tam ci kenn ku dul man yàlla daal waaw matal na ma ay xaybu yu nëbb yoo xam ni gisuñu ko ci kenn ku dul man man da mën a gis yooyu te du keneen dootu ko gis ku dul man ba keroog àdduna tukki am na yu lay yéem yoo xam ne boo ko jeexee ci sëriñ bi rek nga koy gis. waaw képp moom rek waaw bari na lool sax ni doomam yi mel rek benn la ci damay wër ba bëgg a dee mosuma gis am doom yi mel ne yu suñ tubaab. sëñ nga xam ne comme ci am rek da ngaa mbindum sëñ Tuubaa da wër ba bëgg a dee bi bëgg dee saa boo téyee bind sëñ Tuubaa ni ci sëñ Tuubaa daal moo ñàkk morom dëkkub sëñ Tuubaa Tuubaa boo ko càmbaree xool ko ni chëtëtëtëtë dëkk bii bu ñu la waxee ñu bi ma ko sàkkee léegi amagul 150 ans moo mel nii. loolu benn la ci. tukkib sëñ Touba bi amul ku ma sa génn am 24 heures tubaab te pare woo. amul kuy dajeeg nasaraan juróom-ñaari at yu mat te yàquñu taw ku dul yow sëriñ Touba kon li mu boole bari na kon lu ci nekk rek lu may gis sëñ Touba du ma gis keneen dafa bari dafa bari. amul lennam lu nuroog lenn kenn loolu daal di dëgg lennam nuroog ak lenn kenn sunu borom a ko defal loolu lenn sëñ Touba nuroog ak lenn keneen. sëñ Tuubaa rek mu am loolu. xam nga sëñ Ablaye boo xoolee raaya. waaw bi muy tagg yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ñëw ci lahoo minal xelmi. waaw du lahoo minal xelmi de sëñ Cheikh. waaw lahoo minal xelmi damaa bëgg sëñ Cheikh ñëwal ma ci bayit woowu. waaw maalan yahwihi jabalun. wallaay ndeysaan. laaxal adaa fil baraaya. wa huwa sabbaaru sëñ Cheikh. bismillah rahmaan rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin ñëwal ma direct ki lahu min al wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman loo min al ilmi ma lam yawi jabalun nee na lëhoo ñeel na ko minal xilmi ci ak sagoog lewet maa loo xam ni lam yax wi mësu koo làq jabalun benn montagne لاقى العصا في البرايا ووصبا lu tax nga wax loolu Mbàkke mu ne laaxal ava ndax daana rencontré daana dajeeg ay lor euh, fil baraya ci mbindeef yi mu nekkandoloon ci àdduna wax wate moom sabaaru muy muñaakoon mës ta jàmbat inna rasulallah sayfun yustadaa bihi mu ne yenant bi daal dafa mel ni rek jaasi joo xamante ni nii sunu boroom moo ko mbaral boppam muhannadun min suyufillahi battar jaasi la joo xam ni dees na nàndaloo ci moom jaasi la joo xam dees na leerloo ci moom waaye nag sunu boroom moo jël jaasi jooju eh, daas ko ba mu ñaw ci jaasam yi nga xam day dagg rek fu mu toll mhm. lilkulli min jumlatil axyaari martabatun mu ni képp kenn ci gaa yi yàlla yi képp kenn ci jaami yàlla yi képp kenn ci tànneefi yàlla yi am nga martaba am nga daraja lakinnama ahmadul muxtaaru muxtaar waaye bul tudd daraja yi kenn ba méngale kook yanant bi koo mën di tudd na nga ko ca génne moom ne tuddal daraja ku ne waaye yanant bi nag moom la yàlla tànn moom kenn melul ni moom salla alayhi lasi fil jari xaddamaho mu ne yàlla na yàlla mi nga xam ni moo ko jiital yàlla na yokk xéewal ak mucc ci yenant bi musalliman tibqa ma yahwa wa yaxtaaru te yàlla na ko yàlla wommatal loo xam ni day tolloo kem la mu tànnal boppam ak kem la mu bëggal boppam wal alim bi ixtisaasin xad hawaw sarafan nee na tamit di ko ñaanal saabaam yi nga xam ni làqoon nañu ay jagle ak i may jële ko ci liggéeyal yanant bi alayhi salaam li annahum lil wara saadatun axyaar ngir tànneef nekkoon ay sang ñeel jaam ñépp wasabil urri man aqraana um sabaxu saabaam ya ko doon gunge nga xam ni dañoo jiitu woon seeni maas te liggéeyal yanante bi moo leen ko mayoon is baaduhum haajaru wal baadu ansaaru ndax ñenn ca ñoom dañoo gàddaa yoon génne màkka waaye ñenn ñoo leen recevoir ci madinatul a lahum la la dallaayi taxsiisun bi ma wafiru mu ni am nañ ca yàlla seen borom ay jagle yoo xam ne ñoom rek la ko yàlla joxoon ci ay xéewal humun nujuum li xawmin fi duja saaru ñoom saaba yi dañoo meloon ni ay biddiw ci asamaan yi bu lëndëmee ba lëndëm kurus ni biddiw di mel la saaba yi meloon ci nguuru sunu borom lahum la dallaayi talwiilum safailalal mu ni nag sunu borom mayoon na leen ñoom saaba yooyu jàngoro joo indi ak njàqare loo indi ñu mën la ko effacer ba mu set wicc isayal ku ladna suñ wàq daa ndax képp kenn ci ñoom daana dindi tër tër daana dindi tilim daana dindi ràgg ci mbindeef mu leen dëgmal lilxalqi wal imaanu xat jubiloo mu ne ci seen laabire ak ci seen mbaax ak seen ngëm yàlla dañoo meloon ni ay montagne ci kawe turan waxaf di la si alal kuffaar tarkala ñu daan suufee lépp loo xam ne yéefar yi ñu ngi ko daan yëkkati jërëjëf sëñ Cheikh seen da ay ya xam naa ne masrabu shaafi moom faaw nga jëlaat ko moom waaw masrabu ndax moom euh, kéemaan la ci goo xam ne nii doy na waar sëñ daam Euh, mën nga ñoo ubbi ligne bi euh, su ko defee ñu jël euh, ay téléspectateur bala ñoo ñëw ci tey kenn koo xam ne nii dafa bokk ci ñi nga xam ne sëriñ bee tàggatal boppam hmm. mu am cër bu rëy am wàccuwaay nag muy doomi sëriñ Ibrahima Jenn ji ak soxna Mariama Diop hmm. gane àddina ci atum 1864 hmm. insha allahu taala tey foofu lañu bëgg a dugg la fi jataay bi tey nag sëñ Cheikh dugg nañ fa rëy rëy rëy tey moom euh, fi ñu dugg yaakaar naa ne murit yëpp doonañ xam ne dugg nañ kër murit yi nag doomi sëñ Ibrahima jenn jii ak soxna Mariama Diop kenn melut ni moom ci pas-pas maam Cheikh Issa jenn dafa yoru jëmm yoru melokaan woo xam ne ci yoonu murit hmm. ci jëfal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul hmm. ba sëriñ bi def ko ni mu ko def tey ba tax tey sëñ Ablaay boo ne Cheikh Issa ñu ne jenn yaaram lay day sax ñoo bokk sant. laataa mu ñëw ci sëriñ bi nag melul sant wi sant wi melut noonu de. waaye moo yóbbu njenne foofa. dëgg la moo tax tey foo ne foo ne diw ñu ne la jenn yaaram daal di jóg. kon nag euh, tey foofu lañ war a jëm incha allah ginnaaw bu téléspectateurs yi duggee ndax tey 23h ñu tëj. Euh, maa ngi ziar baax sañ Alsaan Guèye di ma nekk fële ca euh, Ndula. Mm. di taalibe bi am satu Mbàkke moom Serigne Chouaïbou bu ah, di takk der gendarme la di ku baax am mm. pas-pas di mm. ku bëgg sëñ Touba itam nag moo ko sëñ Khalifa ak Pierre Moussa Thiaw sëñ Ablaye waaw suñu soppee ñu ngi koy ziar di ko ñaanal ndax euh, taxawaay bi mu xam ne ne am na ko ci sunu jëmm moom ñoom sëñ Khalifa gaa yu lay nuyu sëñ As Diagne ca Long ca Amérique. ca ngi wax sëñ Modou Faye Gomaay. Gomaay waaw sëñ bu baax. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ Amadine lay ziare baax a baax a baax Gaye Gaye amiin gay di siyaare Serigne Cheikhouna Mbacké mu Cheikh Abdou Lahad wallaay ndeysaan ci bisub Serigne Abdou Lahad bii di ginnaaw suba wallaay di ci ñaanal jullit yépp nag ak taalibe yépp mm-hmm. ndax Serigne Abdou Lahad moom nijaay boo wàññee télé bi ci sa ginnaaw dégg-dégg bi dana gën a neex mm-hmm. bu gisam jub see ku dib taalibe ku ne war ngaa bét ndaxte ñépp moo leen teg ci yoon kon ñu di ko santaat tey ñaan yàlla yokk ay leeram amiin tey yàlla xeer ni ci rek bëgg Sëriñ Tuubaa nag abadan wallaay ndeysaan